jàmm mbokki Sénégal mbokki jullit yi comme ni ñu ko daan defe eh, xidmaal xarnu bi dafa dellusi di waxtaanee li ñu bokk muy réew mi ci ñetti poñ yoo nga xam ni fii ñuy waxe lëmbe na réew mi te muy lu am solo te ñu bokk ko ñun ñépp ñu war cee wax suñu xalaat ndax ginnaaw bu ñu amee ak góom ba diagnostic góom bi la ko waral ba noppi li ëpp solo dañoo yaakaar ni ñun mooy ku ci am saafara nga wax ko ba ñu mën a génn ci loola eh, ñu bëggoon a waxtaane nag ñetti poñ tey bi ci njëkk di mbirum immigration clandestine bi nga xamee ni moo waral suñu gone yu bari di génn dugg ci géej gi di ci ñàkk seeni bakkan bërki dëmb tàgge nañu ma sama doomi dëkkandoo fii ci Touba ci Gédé dëmb tàgge nañu ma koo xam ni doomu baay la ci man ñu naan ko Bamba muy xale bu daan liggéey ci maanaam yittewoo woy rasulillahi ak zikrullah tàgge nañu ma tamit ñoo nga xam ni ñu bëri lañu ñoo nga xam ni ay ndaw lañu nekkoon ay anciens militaire ay soldats yu def seen formation armée ba ñëw dem ci géej gi maa ngi jaale leen li ñu bokk Sénégal gi yëpp ak seen i mbokk ku ci ne di ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala xaare leen te ñii fi des yàlla def ci ñoom xel ak xalaat ak dal ak yaakaar ju tax ñu bañatee jël géej gi ah mbirum géej googu nag li ñu seetlu xidmal xarnu bi seetlu na ni li ci ëpp ci liñ ciy wax ci média yi fii ci réew mi yépp mooy wax lu teex lu tax gone yi bañatee jël géej gi waaye bu ñu seetloo gone yi bu ñuy jël géej gi seen waajur ñi leen gën a jege sax duñ ko yëg te bu ñu seetloo yi tamit gone yi wax yi dafa mel ni mel na ni eh, taxul ñu dellu ginnaaw ci jël risque seen àdduna seen dund ci jël géej gi ba tax na xidmal xarnu bi jàpp ni kon segam foofu lañ ci tollu li ñu war a wax mooy di xamal gone yi ak ñi leen ñi ñuy àndal ci géej gi boroom gaal yi ni bu ñu demee boog ba nga xam ni sax def nañ loola ah nañu boole kon ci seeni matuwaay ñu jàng tuuti ci am féey waaye tamit ñu boole ci seeni matuwaay ay gilet agit ñu bàyyi xel ñoom ñi yore gaal yi bañ di dugal ci gaal yi ay gaz lu ñuy toggee pour seenug dund li tax ñu wax ko nag mooy seetlu nañu ñi mujje gaañu ni bu ñu mënoon a ñu ci bari duñu gaañu ndax soriwuñu woon ndax am nañu sowe ñi nga xam ne mënoon nañu ndox waaye li ci ëpp sama gone yi waa Bawol yi ak waa Kajoor xamuñu ndox ñoo ci des te bu ñu amoon itam ñoo ñu ñàkk a mën a féey bu ñu amoon i tamit eh, ay gilet mën naa amit danañ leen ci mën a soowe lu ëpp liñ ci soowe beneen bi mooy gaal ga nga xam ne dafa lakkoon it la ko lakk mooy xalaatu togg ci biir gaal ba tax ñu yóbbu gaas kon ñu jàpp ni yooyu war nañ koo waxtaanee ba nga xam ni gone yi kon bu dara desul sagam bu ñuy dem kenn du ko yëg war nañu waxtaanee ci média yi muy télévision yeeg rajo yi luy xamal gone yi ni leen bu ngeen demee ba nga xam ni kon boog mënuñ ci yéen dara ba mën da di dem fexe leen ba jàng tuuti cim ndox waaye fexe leen ba ci seen jumtuwaay ngeen boole ci gilet yi ñuy sol waaye tamit fexe leen ba nga xamee nii tamit. du ngeen yóbbaale lu ñuy toggukaay ay lu jëm ci gaz ak luy lakk biir gaal yi te di bàyyi xel ci li nga xame ni e, mooy ay lekk yu ndaw yoo xam ne dina tax doo xiif waaye itam dina nax sa xiif waaye itamit a dina téye sa biir te du bari du doon lu lay sonal muy ay bong ak tuuti tim ndox looy tooyle sa buli lii ma koy wax nag am na solo lool ndax jàpp nañ ni yoon woowu ñu jël du yoonu géej ku ci dem li ñuy wax ci armée survie euh, matuwakaayu survie moom ngay war yóbbaale muy lekk yu ndaw yoo xam ne ni du la sonal waaye tamit dina tax dina mën a nax sa xiif ci biir loolu nee naa leen li mën nañ ñu ci bërki démb ñoo nga xam ne ñu bëri la ci ay anciens militaires loolu tax ma dellusiwaat ci sama famille militaire yooyu eh, di leen artu waaye itam di ñaan gouvernement bi eh, li ma ko yàgg di ñaan mooy gone yooyu nga xam ni li ëpp ci seen doole seen kàttan ci seen dund dañ ko ci sacrifier jox ko réew mi ci armée ñu xëy génne leen arme ñu bàyyi leen ñu taxawaalu bëgg liggéey amuñu liggéey te mu am ay agence yoo nga xam ni ñooñu président Abdoulaye Wade moo ko defoon mu jëm ci gone yooyu benn bi di fondation des invalides militaires nga xam ni moo waroon a saytu ñi nga xam ni dañoo jëlee ci armée bi ay guerre wala ay ay feebar ak wala ay blessure fa nga xam ni seen nekkin dina tane ci société bi ak bi ci des di agence pour la réinsertion des anciens militaires bi nga xamee ni noonu mu tudd mooy wone njariñam ndax njariñam mooy eh, jàppale ancien militaire bi jóge armée pour mu mën a delluwaat ci ay activité yoo nga xam ne dina ci mën a yor boppam man ci yore njabootam man ci dimbali ay waajuram yàgg nañu di ci intervenir venir di ci wax le président Macky Sall di yàgg yit di ci am yaakaar ci moom ndax moom ni mu meloon ci soldats yi anciens militaires yooyu ndax bañ ko njëkkee fal fa mu njëkk dem mooy IHO seeti leen ña blessé ci armée bi loolu nag au niveau national eh, lépp ci armée bi anciens militaire yi ci réew mi yëpp la concerné waaye rawatina nag anciens militaires yi dëkk Bawol ndax Bawol li ñu yàgg a joytu muy invalide yi fi dëkk dañu koy dellu di joytuwaat ndaxte dañ ciy dund loolu dëgg loo nga xam ne loo nga xam ne lu naqar la ñu laaj ndimbal te amuñu lu leen dimbalee kon li nga xam ni am nañ ko mooy te armée jox leen ko muy ay pension d'invalidité ak ay carnet de santé yu ñu mën a di fajoo ñoo ngi lancé waat appel au président de la république monsieur Macky Sall mu jàppale anciens militaires yu Bawol yooyu invalide militaires yu Bawol yi ba ñu am docteur. bu leen di mën a signal seen i carnet te amit pharmacie bu ñu mën a jële seen i garab fii ci Bawol noonu itam lañ koy waxee itam ni agence bi yii ma mujj du tudd muy agence pour la réinsertion des anciens militaires ak fondation des invalides militaires ñoo ngi lay bàyyil xel yow président de la république ñoo ngi lay fàttali ni Eh, dañ leen a rattaché waaye du ñu ay service militaire du ñu ay service armée ndax seen tour rek wane na ko pour ñi jóge armée la nekkatuñu en activité pour ñoo ñooñoo tax ñu sos loolu kon bu fekkee ni pour ñooñu ñoo tax ñu sos loolu ca dëgg-dëgg mu ñu dem di seetaan ba suñu ay gone yi ñuy war a di jàppale ñooñu di dugg ci géej gi di ci dee te ñu gis agence yooyu ak fondation boobu ay mbiram yépp ñi mu amal njariñ doon ñoo nga xam ne du ñu ay gone li ci ëpp tolluñu ci situation bu doywaar muy ñoo nga xam ni kat ci dëgg-dëgg mën nañ seen bopp ndaxte ay gradé lañu woon dans l'armée ñi ñi ci ëpp doon ay officier supérieur ñu leen di jox ay bor yi 30 millions 40 millions 50 millions ñu ciy def seen ay jardin di ci def seen ay ay ay defar seen ay kër yu bakkane yaakaar naa ni loolu taxutoon a jóg agence boobu ak fondation boobu li taxoon a jóg agence bi mooy jàppale soldats yi nga xam ni dañoo jóge armée ngir ñi ci am métier ñu jàppale leen ci ay financement yu ñu exercer seeni métier ñi ci amul métier ñu boole leen tàggat leen jox leen i métier jox leen financement looloo taxoon na jóg boobu agence pour la réinsertion des anciens militaire waaye léegi ba tey jii gore yi jóge armée gisuñ ci seen bopp monsieur le président de la république te li tax gisuñ ci seen bopp mooy ah benn group bu nit rek muy ay officier supérieur ñoom ñoo ci bénéficier wu ci seen biir te jeexital bi yépp mooy seen njariñul bopp ak seenu njaboot ci kaw defar ay kër yu bakkande ak ay jardin yaakaar naan loolu taxutoon mu jóg yooyu agence fondation bi te la même chose fondation des invalides militaire li nga xam ni moom lañu gisee ñu koy doxale muy bu tabaski jotee bu koor jotee ñu jël veuve militaire yi di leen may ay ay ay xar rafet na loolu naam ak i suukar ak i tàndarma waaye loolu moom i tamit du loolu rek moo doonoon mission mission mooy taxawu invalide yi ñi nga xam ni dañoo jóge ci armée feebar wala blessure ñi nga xam ne dañ leen war a taxaw ci seen biiri njaboot kon loolu moo tax bu ci loolu nag bu ci mbirum géej mi mbëkk mi ñëwee ñu dugg ci ñoom soldat soosu dekkoon armée jaaxle dugg ci mbënd moomu ba di ci des seen bakkan day tax kon ah liñ naan li tubaab ni la répétition est pédagogique day tax kon ñu war cee waxaat te duñu des duñu bàyyi di ci wax ndaxte kat Sénégal moom e, xamuñu artu daa mel ni xamuñu artu kuy gis lu ñu xam ne bu ñëwee mu doon musiba mu koy wax ngir ñu jëm ci matuwaay Sénégal xamuñu loolu Sénégal dañuy bàyyi rek ba yëf ni tël musiba am ñuy door a fay lakk gi fekk na c'est trop loolu moo waral ma jàpp ni ancien militaire yi monsieur le président de la république rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo ëpp ci ancien militaire yi ñi def juróomi at ñi def ñaari at ñi def fukki at ñi def fukki at ak juróom def lu bëri ci armée sacrifier seen vie ci armée te ñu am ay jumtukaay agence yoo xam ne pour ñoom la ñoo ngi ñaan monsieur le président de la république nga jubli ci loolu gëstu jumtukaay yooyu muy agence yooyu lii seen rôle lii seen warugar ñu def ko te teg ko ci ay loxo yoo xam ni tamit ñu ko mën a yore la ñoo xam ni ñii lii soldats ci anciens militaires yi di dund ñoo ngi ko bokk ak ñoom di dund wala xam nañu ko wala dara ump leen ci bu loolu weesoo. Euh, ñu waxtaane ponk bi nga xam ni mooy lëmbee umma islamique bépp muy lii nga xam ni le président français euh, wax na ko ci suñu diina ji jëmale ko ci sallallahu alayhi mu naqari bépp jullit loolu liñ ciy wax lenn rek la ñaari ponk rek lañ ciy wax benn bi ñu jëble jumale ko ci président Macron ndax bërki démb mi ngi justifier loolu mu wax ni hmm, fii di réewam muy France liberté mbind ak liberté wax ak liberté dessiner dafay am te fasul yéene mu dellu ginnaaw te ñoom fasuñu yéene itam seeni aada ak seen bëgg-bëgg ci seenu réew ñu dellu ci ginnaaw ma koy yëgal ni ko ah liberté boobu muy wax liberté bind ak liberté wax ak liberté dessiner lislaam ci boppam itam dafa ànd ci liberté boobu dafa am ci liberté boobu cër bu mu ko jox bu mat sëkk waaye nag liberté bi bu fekkee ni ci réewum France amul fu mu yem amul limite l'islam moom amal na ko limite ndaxte liberté bu demee ba di offenser nit ki ci ngëm-ngëmam du deme ba di toroxal nit ki ci ngëm-ngëmam loolu ñun ci biir diine lislaam day doon loo xam ni du doon yoon ci lislaam te sax dañ koy tudd péché bàkkaar lay doon boo xam ni nit ki dina ko amal ki mu tooñ waaye dina ko amal suñu boroom ba tax na kon président Macron ni ñu lay mën a nangule nii France réewum France aadaam ak ay bëgg-bëggam la ñu bëgg a doxale noonu la doo ci dellu ginnaaw jàpp nañ ni kon ñun réewu jullit yi itam li ñu bëgg suñu aada suñuy doxalin suñuy ngëm-ngëm war nga ñoo bàyyee loolu kon ci suñu réew ñu ko fi doxale ci nit ñu ko suñu diine sante loolu rekk la beneen bi mooy li nga xam ni moom lañu ñu war a def jàkkaarloo ak loolu jàpp naa ne du xeex du xuloo du xaste waaye roy rek ku mel ni kuñ suñu royukaay ba suñu yaakaar tey ak ëllëg si Ahmad Bamba Xaadim Rasool ndax nii xew tey moo xewoon cay jamonoom ña doon xeex diine lislaam mu jàmbaarloo ak ñoom waaye moom naka la jàmbaarloo woon ak ñoom loola ñun jullit yi loolu lañ war a xoolaat doxale noona te loola du xeex du xuloo du jëliñ ngànnaay waaye lenn dong la mooy bàyyee nasaraan boobu noonu lislaam boobu noonu suñu diine boobu bàyyee ko yëfam ak alalam ak léppam tey jëflanteeg ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal gëm-gëm te ci wàll woowu maa ngi demandé le président de la république ak suñu gouvernement Sénégal eh, ñu defaraat suñuy rapport ak réew mi naan turki ndax réew la bu ñu bokkal gëm-gëm kilifaam doon ko nga xam ni itam ñoo bokk ngëm-ngëm te lépp loo nga xam ni suñu ndaw yi li ñuy wut ci immigration taamuwuñ ci France rek kon bu ñu defooroon suñuy diggante ak Turquie waxtaan ak moom ba nga xam ni bu ñu soxlaa ay liggéey suñu ndaw ñi ñu wut leen wutal leen foofu ay contrat yu ñu liggéeyee eh, ba pare yi tamit sur le plan commercial li ñuy jéggiwaan di ko wuti France ci ay produits yu ñuy jëfandikoo di ko indi fii ci réew mi Turquie mi ngi koy defar kon yaakaar naa ni defar suñuy diggante ak turki ba nga xamee ni lépp loo xam ne moom lañ doon def ci commerce ak économie dinañ ko yokk suñu diggante ak turki suñu émigration yi dinañ ko orienté ci réew moomu yaakaar naa ni loolu bokk na ci solution boo nga xam ni bu ñu war a jël la suñu gouvernement bi ma ci ñaan le président Macky Sall ak gouvernement am euh, ñu bàyyi xel loolu ak beneen réew it bu mu mën di doon boo xam ne rek bokk na ñun ngëm-ngëm muy diine lislaam ji ñu rataxal suñuy diggante ak ñoom te bañ a xeex bañ a ŋàññi bañ a def ak la France loolu bàyyeekoo ak mbiram te ñaan ko mu bàyyee ñoog suñu mbir. ma dellusiwaat nag ci itam ci mbirum ba tey ci mbirum diine ji ñu bokk. ak nooni diine bi ñuy war a jàmbaar lool ci xel di xamal ni ñun senegaal eh, dëgg la noon bi tamit am na jóge bitim réew waaye lii doon na leçon boo nga xam ni war nañ cee jàngate ba ñun ci suñ biir ñun itam fii ci senegaal ñu bokk benn diine bi ñu xam ni kon suñu njariñ mooy ñu doon wenn say ñu bokk ndey bokk baay ndaxte a ah, noon bi moom bokkut ak ñun gëm-gëm ba wone moom nu muy doxale kooku am na ci sañ-sañ sax waaye nag bu fekkee ni noon bi dafa fekk ñun suñu biir nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ngëm-ngëm bokk di ay jullit bokk it menn réew dañuy féewaloo suñu biir yaakaar naa ni noon mi day gën a am fu mu ñu jaar ba tax na xidmal xarnu bi mi ngi ñaan képp kuy jullit ci réewum Sénégal ah nga jàpp sa moroomu jullit na nga jàppe sa bopp ñu delloowaat war may suñu mag ñu baax ña boo demee Tiwaawan boo demee Ñaseen boo demee Ahlu Kuntuyu nga dem Tuubaa foo ci dem suñu mag ya fa nekkoon wor ma ya ñu nekkoon li taxoon ñu am doole li taxoon ñu samp ci réew mi li ñu fi samp ñu koy dunde ñun ñu koy jariñoo mooy dañoo bëggante woon dañoo soppante woon dañoo yéenante woon ay jàmm teyit ah dara daaw nangu mu dox seen diggante ci lu ñaaw ba tax na e, xidmal xarnu bi mi ngi ñaan képp koo xam ni yaa ngi ci biir réew mi muy kilifay diine yi di kilifay aada waaye surtout raw na képp kuy jullit rek ku fi ne mag ak ndaw góor ak jigéen ay lii ñu dégg noonu lislaam yi dañ bëgg a jullit yi waaye bu ñu leen jàppale ci di noonu ci suñu biir nañu soppante nañu dëgërante bu dee sama mbokki taalibe yi ma bokkal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul li nga xam ni moom lañu ñu yoonu murit liy dooley murit mooy doon wenn say liy dooley murit mooy ku ci nekk jàpp ni sa moroom la gën li doonoon dooley murit mooy ku am lu baax yéene ko sa moroomu taalibe ah nañ fexe ba loolu nga xam ni moom mooy war may suñu mag yu baax yooyu noo ñu di doon doxale di soppante ci seen biir di yéenante jàmm tey jàppalante ci seen biir ñu delloosiwaat loola te xam ni kat àdduna si li sang bu baax ba waxoon Cheikh Saliou Mbacké ni àdduna moom dangay dab rek di ko wuti te doo ko dab ba mukk eh, moo fi ne teyit alal lu mu bëri bëri lu mu neex neex amul benn solo bu dul jariñ sa mbokkum jullit jëf ci lu baax loo nga xam ne boo wëlbatu dem yomal xiyaam dinañ la ko mën a seddal ci lu baax looy def waaye dajale alal sa dëkkandoo ñàkk lu mu dundee te mu leer na ni am nga yow dajale nga loo xam ni yow mën nga koo jàppale te jàppalewoo ko loola day du lu ñu mag ñu bàyyee dajale alal am ay société am ay ju liggéeyukaay yoo mën a liggéeyloo ay ndaw te defuloo ko dajale say alal def ko ci contre bancaire wala nga def ko ci coffre foor di dawal oto ba nga xam ni oto ba maanaam mën nga ci am dëkkuwaayu fukki borom kër yi néewu doole nga def ko dam nañu bàyyiwaat xel ci ñàkk solo gu àdduna bi ñàkk solo waaye nañu bàyyiwaat xel ci suñu borom kat diine bi diine yi mu ñu indil dara warul ko lu dul rafetal suñuy jikko rek bu doomu aadama yépp mënoon a rafetal seeni jikko am jikko yu makaarimal axlaa kon suñu borom du wàcc sax diine wala wala muy wàcce yonent ndax diine yeeg yonent yeeg xutba samaan yi ñu baax ñooñu ñëpp suñu borom bu ko wàccee ci ñun bëgg gum ñu bëgg la bëgg lu ñu texe rek bëgg ñu am jikko yu a axlaa dong moo ko waral waaye kat nañu bàyyi xel ci ni kon bëgg naa yàlla gëm naa yàlla damay jaamu yàlla di jullee ko woor te yore alal te nee nañu kat képp ko yore alal ju ëpp say soxla na la seere ni alal joojo kon yàlla mayu ko yow dong du sa alal am na daf la ko jox ngir nga jàppale ci ay doomu aadama ngir nga jàppale ci say mbokk ngir nga jàppale ci say dëkkandoo waaye loolu bu amul alal ja amul solo te saa yoo dee alal ja day nax saa yi ñu bàyyi xel ci loolu te presse bi Sénégal jot na nag yéen tamit ngeen di teg ci rajo yi ak télévision yi li nga xam ne luy rafetal la luy defar la te yu ñaaw yi safaan yi ngeen koy bañ di teg ndaxte teg ko kat ak di jox lam mikro ñi nga xam ni ñii ci lu ñaaw rek la ñuy wax ak ci luy yàq rek lay wax te dëgg-dëgg loolu ki ko def yaa kawax lu ñaaw loola yaa kay féewale nit ñooña yéen a yem même kon ñu bàyyi ci xel e, bu ñu bëggee suñu réew mi e, suñu jàmm ji sax nañu bàyyi xel ci loolu te xam ni kat suñu mag yi kat suñu maam yu baax yi alaaji malik Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul maam Limaamu Laay maam Ablaay Ñas maam Ibrahima Ñas seen jaan wàcc na def nañ seen liggéey ci seen jamono te ba mu totollee waaye ñun nag ah, bis bii ñu toll jamono jii ñu toll xarnu bii ñu toll suñu xarnu la kon nañ ko xitmaal nañu delloo si suñum xel roy ci mag ñooña bay jëflante jëflante yu rafet yéenante jàmm yéenante lu baax su ko defee yàlla jàmmoo ñépp jàmmal ñépp li ñu bëgg ñu am ko àdduna am ko yomal xiyaam lii mooy mission wu xidmal xarnu bi ñu ciy dox ci wàll wu ne ba tax na saay su ne ay bis bu ne ñu wax ci li nga xam ni moom mooy li ñu bokk di ci waxit suñu xalaat bu dee ñaari nit ñoo ñuy déglu sax te bokk ak ñun xalaat boobu tey jëmmal xalaat boobu ci seen biir sax amal nañu njariñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.